mbokk Samagal TV mboko internautes yi ñu ngi leen di nuyu den ziar dañ wax ne ñu ngi ci huitième édition Adel ba léegi fii ci Tëngéej di nekk nag ci jour bu mujj bi taxaw ak euh, champion bi xam ne dina dina présenté wu wax ma mooy kan wax ma fi may ban bergerie kii dafa ziar naa. waaleykum salaam ñu ngi ziar bu baax a baax a baax mbokki Samagal TV ñu ngi leen di ziar euh, maa ngi tudd Oustaz Pap euh, dëkk Tëngéej bergerie bi ngi tudd aussi bergerie Ansaroudine. macha allah Ansaroudine lu muy tekki. waaw Ansaroudine mooy mooy mbooloo moo xam ne dañuy dimbali diine. comme xam nga yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi mu jugee Màkk di dem Medina. ñooñu ko dalal ñoo ñooy waa Ansaar. Uh-huh. waaw ñoo ñooy waa ansaar diin. <laughs> macha allah macha allah macha allah. Uh, bergerie bi mi ngi nekk fi HLM Tëngéej. waaw HLM Tëngéej fii la nekk macha allah cité Sonatel. macha allah uh, ñaata kañ la taxaw. waaw bergerie bi nag bi mu taxawee léegi léegi mu mat deux ans. Uh-huh. donc ren mooy suñu première édition. macha allah. première édition uh, tey maal bi ma fekk moom kan. waaw kii mooy Bichri maal bi mooy Bichri. donc euh, di dom ci Valda di dom ci euh, Darfour Darfour Valda moko jur Valda grossis ba donc côté yayam dañ Collé Ardo dom monstre la euh, di sët ci Villiers di ci Machallah allah Machallah Machallah ko ko wa mom dañ mako jox sama ben xarit bu wax Mbay mom moko jox mom Matar moko joxon Darfour donc wa mom Darfour Machallah mom ñata mom wa mom mi ngi deux ans et demi macha allah mm-hmm. ok ban la koy jox ñaata mois la. waaw koy jox ne mi ngi amoon 7 mois 8 mois. ok waaw mi ngi mi ngi ci 7 mois 8 mois. macha allah. production ni mu demee est-ce que euh, gis nga ci waaw vraiment moom production moom ni mu mel nii loolu hmm. oh, parce que bo xolé daf may day def esthétique day def dolé ndax euh, xam nga fi mu bokk aussi euh, gànd bi ñep xam nañ né dañuy def maturation dañu équilibrer donc aussi côté yayam aussi di algor bi ah macha bi gis nga beauté bi donc machallah et ay mom dañuy rafet dañuy am doole machallah allah. Euh, nga ànd koog ay ñetti femelle. ñal la ak benn añel ñaari femelle ak ben añel ah? waaw ñaari femelle ak ben añel donc femelle yi euh donc bo xolé bu wex bi koku domam la moy Zahra. euh ciulul bi di dom ci euh, Genga Genga moko ko jur. donc euh, Nasru muy teg noir bi. ndurox première dame di dom aussi tamit ci Genga machallah machallah macha allah. macha allah. benn waaw moom kii doomam la. bu weex bu bi waaw añel bi añel bi doomam la bu weex bi. macha allah yeneen doom yi nag ay ay ay ay kii lañ ay jeune mâle lañ te xam nga doo leen mën a indi boo leen indee rek day xaw a métti waaw macha allah. macha allah bëggoon nañ gis jeune mâle après dinaa la ko dinaa la ko envoyé bu ko ah, defee. waaw nga mën ko dugal parce que def moom day def doom yu rafet. Ah. waaw doom rafet lay def vraiment. donc te xale la aussi. mais gis nga foire bi aussi waaw macha allah gars yi ñu ngi koy bàyyi xel bu baax parce que aussi li bëgg ci xar moo ne ci moom euh, am rafet na am na doole te macha allah macha allah. ba nga ci ba nga ba ko yoreeg léegi euh, ba nga lekkee ci élevage beeg léegi euh, fan ngeen toll ci liggéey. waaw parce que boo xoolee yàgguñu ci trop. Mhm. Euh, vraiment yàgguñu ci trop mais ñi ngi liggéey liggéey boo xam ne vraiment fii ci Tëngéej moom bergerie Ansaroudine man ma jiite ko di Oustaz Pape vraiment kenn du ñu fi parce que ñëpp xam nañu xam nañu ci qualité xam nañu aussi tamit ci ñàkk yàkkamti parce que élevage aussi dafa metti mais ku xool exposition bi da ngay gis ne qualité la ñu wone

vis ñi visité aussi rafetlu ko kon day wane nak vraiment yang ci yoon donc machallah machallah macha euh, jox ñu numéro téléphone bi ak day dem intervenir. waaw bon numéro téléphone bi mom 77 220 14 77 donc lool moy sama numéro téléphone 77 220 14 77 HLM Rufisque Tëngéej HLM cité Sonatel. merci Machallah, machallah. macha allah. waaw koy intervenir wala. waaw euh, Ousmane. waaw euh, nga fekk ni ci waxtan bi yaay kan. man maay Ousmane. di rakku Ablaye Mbaye niñ ko waxee comme ni mu ko waxee rek Bergerie bi moom ñu ñoo ko bokk def lépp Bergerie Ansar nekk Bergerie boo xam ne dañoo boole suñu lépp nga xam ne daal yàlla def na si tawfeex daal foo dugg nañ si bisimilah rahmaani rahiim génn si alhamdulilah rahmaani rahiim waaw ba ba ba ñu laajaat rek. naka la sàmm gi demee nag ci gétt waaw gétt gi moom alhamdulilah moom sant nañ yàlla bu baax a baax ndax moom comme ni mu ko waxee rek sunu waajur moo ko doon def ñu ne ci ba niñ ci duggee. nga xam ne lépp lu luñ ciy def rek dañ ciy diisoo mu doon loo xamante ne moom moo jiit ñu ñoom topp si ginnaaw mu doon suñu mag nga xam ne daal euh, càmm gi daal boole boole boole boole nañu boole goo xamante ne daal ñu ngi ñaan yàlla daal nekk si niveau boo xam ne daal nekk ba njot daal. incha allah incha allah

Euh, donc moo tax ñu ne nañ jeexaat rendez-vous. inshallah rabbi saladel euh 2023 wala 2024 bu fekkenté amna ñu bàyyi ko xel bu baaxa baax muy Bichri machallah yaar ñëpp machallah machallah macha allah merci beaucoup.